dal leen ak jàmm ci AGT news ñu teewlu kàddu yi Babacar Fall yi nga xam ni da doon jeexal ab émission am jaaree fa nag di jéem a gaaral usmaan Sonko ak président Macky Sall dañ leen di bàyyi ngeen teewlu kàddu yi ba noppi daal di dellu siwaat ci suñu jàngat. sa yooyu Sonko toog fee sol capuchon euh, di layam layami euh, euh, génne kanam UNICEF di yërëmtalu som Euh, samp butéel butéel bi toqul yéen daal yéen a ngi noonu yéen politiciens yi parce que vraiment. agité wax ji rëy na euh, tentative d'assassinat posonné te nee ñu police jàpp na waa ji ñu gis muy jéem a xëpp dara Sonko te ba bañ ko jàppee yóbbu ko police di ko enquête dani bineegar la la ko xëpp ndax euh, lacrymogène la bañoon mu sonal ko après bon c'est compliqué quoi yéen ak ñoom Macky Sall daal politique rek. waaw jël en otage askan wi di jàppal fii yëngal fii franchement. voilà lii du est-ce que dina jëmale réew mi kanam. waaw mais xam nga wérante politique yi dañ maa posone kii ne binaire kii ne franchement euh, démocratie. démocratie mbuucaa mbuuj daal moo am ci réew mi démocratie infantile am déet ñoo déggandoo Babacar Fall kàddu yu mu yëkkati président Macky Sall la ci njëkkee moom mi nga xam ne comme ni mu ko waxee saa su nekk day dem ci média étranger yi di fa wax soxlaam au lieu que muy ñëw fii ci Sénégal ndax xeeb na ay journaliste am ci niñ ko gisee muy addu ci question yu gën a am solo te fii ci Sénégal du ci mës a wax à chaque fois il suffit que mu dem ci étranger média wu tubaab yi ñu daal di koy laaj mu door tontu loolu nag moom Babacar Fall mu jàngatee ko ab xeebel boo xam ne président Macky Sall dal dina koy am ci journalisme fii ci Sénégal waaye nag loolu mën nañ ko comprendre ci benn instant bien vrai que nag mën nañ jàpp ni président Macky Sall am na xeebel bu mu ci am waaye xeebel boobu dafa am lu ko waral yenn borom xam-xam yi dañuy faral di wax naan lu am rek léeg am na ay cause bëri na ci ay journaliste fii ci Sénégal yoo xam ni seen crédibilité dañ koy xoolaat xool leen léeg-léeg xët wu njëkk yéenekaay yi li ngeen ciy gis day am lu doy waar yu xew fii ci Sénégal duñ ci àddu dañuy préférer wax ci leneen loo xam ni léeg ay commande lay doon yoon ñëpp xam nañ ne journaliste yu bëri leen di soudoyer ñenn ñi itam di bind pour l'état du Sénégal ngir am tout simplement lu leen neex seen ay poche mën a fees loolu nag ñëpp dañ koo ràññee jamono ji ci journalisme ci Sénégal moo tax ñu bëree bëri sawaratuñ ci ba tax na moom Babacar Fall kaddu yi nga xam ni moom la jeexalee jëmale ko ci Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne loolu bokk na ci liy tax saa su ne genre président Macky Sall yi di leen xeeb ndax kat dañuy yëkkati ay yoo xam ne dara wóorul leen i ay jàngat subjectif Babacar Fall mën nañ ne dafa xas Ousmane Sonko moom nag nee na waajilee ci tappale dong la nekk lam doon def ci ab déclaration boobu di yëramtalu ñu ne déetawaay moom Ousmane Sonko mu jël ay perfusion yoo xam ne jëmul ci biir yaramam daf ko décorer noonu rek ngir sénégalais yi am benn yaakaar ne moom Ousmane Sonko il souffre alors que demeewul noonu loolu nag ay kàddu yu Babacar Fall la am na nag loo xam ne fii ci Sénégal jar na éviter mooy ñi nga xam ne saa su nekk bu ñuy yëkkati ay kàddu dañ koy jëmale ci luy yàq waaye defar ndax tey jii Babacar Fall kaddu yooyu mu yëkkati mënoon naa dem ba am ci lu ko leer nañ mu door a mën a wax waaye itam ñëpp fàttaliku nañ kaddu yi nga xam ne moom yëkkati woon na ko fi jamono jee ñu weesu bi nga xamee ne Barthélémy Diaz ñëwoon na foofee ca TFM attaqué leen attaque yu ama am solo yoo xam ne ñëpp dañ cee béggoon ndax ñëpp doon jooy TFM RFM wala sax groupe GFM en général ni ñuy traité information yi léeg-léeg en faveur de l'état du Sénégal mbir yu mel nii képp moo tax journalistes yi kenn joxu leen seen cër da ci seen liggéey bañ a am benn parparloo ci buñ ci daal di def bu fekkente ne sax dem nga bay far fenn na leer nañ ndax nag far ci dëgg moom moo gën foofu far ci lu dul dëgg ci loo xam ne jëmalewul sa am réew kanama loolu daal bés buñ ko defoon mën nañ jàpp ne ñi ngi tegu ci yoon waaye bu dul loolu nañ bàyyi caaxaan bi nga xam ne moom la ñu nekkee te jéem a informer sénégalais yi ay information yu leen di jëriñ yoo xam ne itam du ànd ak benn manipulation AGT News